yes ah, waaw bu baax a baax important na bu baax because ñu ne nga waaye max am na saa nga loolu xëy su nekkul corona sax max moom very important because yeneen disease mën na mën na mën naa jot ah am na ñuy wax ñu ne jël péngu yi man da jël naa péngu yi bu yàgg yàgg yàgg because suñu office ñun fi ñu liggéeyee dañuy sax ku jëloo péngu yow doo fa doo fa liggéey because xam nga seefut ñu péngu yow péngu la moo tax ah, ñun ñëpp jëloon na péngu yi um, about three or four months four months ago um, man every day every month damaa dem ah, wër sama ward bi dëkk dëkk fu ma dem danaa ne waa Africorona because loolu moom liggéey ñun